na ni Cheikh Mamadou Mountakha euh, lépp loo xam ne mooy digle mooy euh, ndigalul Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul te ndigalul Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mooy ndigalul sunu borom subhanahu wa taala te xam ngeen ne loolu naka jekk Cheikhul Khadim loolu mooy li nga xam ni moo ko tax na ñëw jamono mooy di digle waaye di tere te lépp dëppoo l'islam waaye ni ko noonu gis ngeen lu am solo li nga xam ne Cheikh Amadou Bassirou moom Serigne Abdou Khadir Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te wér fàttali na ko mooy fii jamono toll tey rawatina yoonu murit te war koo bàyyi xel lu bare bari te mooy lu mel ni xeeti wax yeeg lu mel ni yenn xeeti jëf yi te kenn ku nekk war cee setal sa bopp waaye setal ci ab daram eh, ci kenn ku nekk doon fexe doon ab taalibe boo xam ne day jëfe ndigal waaye di bàyyi ay tere eh, sëfe naa ne Serigne Eh, géwlu xaadim rasul na mën naa la lool waaye dégg nañ discours bu am solo bi nga xam ni eh, Serigne Bassirou Mbacke yëkkati na ko ginnaaw boo xamee ni eh, Abdou Lahad Ka yëkkati na ay kàddoom jërëjëf yaakaar naa ne suñ koso discours bi am na solo lool Serigne Bassirou moom sëñ Abdou Khadir Mbacke li nga xam ne moom wu nekk defati na ko saa yu defee discours muy discours boo xam ne yoonu murit gépp mën nañ koo jariñoo waaye sëriñ Koso eh, am naa ci njàngat kon eh, bu ñu déggee waxi sëriñ Basiiru dafay mel ni eh, jëmm ji nga xam ne tey moom la ñuy defal cérémonie officielle de Cheikh Mouhamadou Fadal daal boroom yërmande la woon loolu dégg nañ ko ci waaye itam yaakaar naa ni dañoo wax ne sëriñ Modou Mamoun Mbakke moom sëriñ Fallu suñu xarit mooy wax ci turu njabootu sëriñ Fallu yëpp kon ndeysaan kon kon sëriñ Modou bismillahi irrahmani irrahim eh, tuliba minni an ulqiya kalima billugati alarabia wa olaxisaha fi ma baad billugati alwolofia eh, walakin li diqi alwaqt sayakunu kalaami insha allah murakkasan wa wajisan billugatayni maan insha allah eh, sa aqra alkalima billugati alarabia summa utarjimuha bil wolofiya fi ojaala insha allah li diqi l waqt wa xasatan baada tadaxuli axina wa sadiqina cheikh Mouhamadul Bachir an naatiq bismil xalifa al aam li tariqa al muridiya damay wax rek ne kàddu gi day gàtt loolu insha allah dañ ko def ngir ndigal rek ñu wax ne nañ ko def tuuti ci araab def ko ci wolof moo tax te waxtu wi jege na julli gi jege na ak li war a jëm allah sa yakunul kalaam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 sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi dawi ridwan wa tamkin wa radiyallahu an sayidina wa wasilatina ila rabbina abdillahi wa xadimi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mutabarrikan bi qawlihi alkarim wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida asxaab alsamaa almashaayix almuhtarimin alkiram ala cheikh alxadim asxaab alfadila mumathili albuyutaat addiiniya السيد مختار با وزير الرياضة ممثل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الوفد الرسمي أصحاب السعادة السفراء أصحاب السيادة ضيوفنا الكرام أصحاب الإرادة قادة المريدية وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود البشير الناطق الرسمي باسم الخليفة العام fa inni saidun jiddan bil musuli amamakum bi idnin min alcheikh abi baraka xalifati cheikh mahmoud alfadil wa bi tansiqin min almunasiq alaam li usrati cheikh alfadil cheikh mahmoud albachir wa bismi cheikh abdulfatah رئيس الناطق الرسمي باسم هذه الأسرة الفاضلة ونيابة عن اللجنة المنظمة لفعاليات معجل كنز رجب مسرور جدا لأوجه إليكم باسم الشيخ أبي بركة هذه الكلمة الوجيزة التي تدور حول ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى عبارة في امتنان وتقدير وشكر والنقطة الثانية في تذكير لسبب هذا الاجتماع ثم النقطة الأخيرة في كلمة عن اهتمام الشيخ محمود الفاضل بالعمل أو بكسب الحلال فبخصوص النقطة الأولى امتنان وتقدير نوجه امتناننا وتقديرنا لسماحة الشيخ الخليفة العام الشيخ مهدي المنتقى حفظه الله ورعاه على ما له من موقف بناء ويل بيضاء تجاه الدين والوطن والأخوة الروحية والدموية عامة وتجاه آل الشيخ مهدي الفاضل خاصة أصحاب السيادة الإخوة والمشايخ وقادة الطرق نوجه إليكم خالص الشكر على تفاعلكم الإيجابي معا عن صدق وحب وإيثار من أجل إنجاح هذه التظاهر الدينية ونوجه شكرنا وامتنانا باسم الشيخ أبي البركة إلى أصحاب السماحة العلماء ومشايخ الطرق الصوفية والحركات الإسلامية على تلبيتهم لدعوتنا ومشاركتهم معنا في هذا الاحتفال السنوي وأصحاب الإرادة الأتباع إخواننا والأحباء الذين يضحون بالنفس والنفيس من أجل إنجاح هذا الحدث الكريم ونوجه الشكر الخالص أيضا إلى الحكومة السنغالية عبر سلمها الإداري mala almawqif alijabi alladi akadathu min jadid fallahu yujazikukum jamian anna ala hadihi alniyat alsadiqa wal amal alxasana wa nashkuru alhay'a alsaxafiya min saxaafa masmua wa mariya wa maktuba min saxaafa xaasa wa saxaafa taabia lildawla النقطة الثانية تتعلق بتذكير وجيز عن سبب هذا الاجتماع هذا الذي يتخلص في في الشكر لله على نعمة ازدياد العبد الصالح cheikh Mouhamad al Fadil alladi raaba allahu bihi sada wa fataxa bihi ratq wa tamam bihi muraad cheikh walidihi mawlana cheikh mawlana cheikh al xadim qaddasa allahu sar fi hadihi layla المباركة ليلة السابع والعشرين من رجب الفر الحرام التي شهد فيها شهد فيها الكون حادثة الإسراء والمعراج التي تضمنت من دلائل القدرة والإرادة والإنعام والتفضيل ما لا يعد ولا يحصى مما يشير إليه القرآن الكريم واستمعنا إلى حفيدنا قبل قليل يشير إلى هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وجاء في آية أخرى ذكره الحفير حفظه الله في سورة النجم ثم دنا فضل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر الآية ومن ذلكم الصلاة التي هي أهم أركان الدين بعد الشهادتين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة والتي كان الشيخ الفاضل اهتمام خاص بها لما له من مظاهر عديدة وأهمية كبيرة في ديننا الإسلامي من أهم تلكم المواقف هذا موقفه في مسجد توبة هذا الصرح الشامخ المتواجد أمامنا الحافل بالدروس والعبر النقطة الثالثة والأخيرة اهتمام الشيخ بكسب الحلال نستخلص من حياة صاحب هذه الذكرى الشيخ محمد الفاضل الذي كان مثالا يحتذى به في كل جوانب حياة المسلم الحق والمريد الصادق إلى أن الذي اخترناه لكم هذه السنة كما تعرفون هو اهتمامه بكسب الحلال الذي هو واجب ديني وضرورة إنسانية وسبب للطاعة والقبول قال الشيخ الخديم رضي الله عنه وطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بغير وهم لا ينفع العلم ولا العبادة bil akli lxaraami inda saada iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa fa fa cheikh al muxtafa bihi cheikh al muxtafa bihi cheikh Ahmadul Fadal rabba wa allama wa darraba wa allafa wa ajaada shaaran wa wajjaha wa bana masajida wa jawaamia wa xajja wa saacada xujaajan wa zaraa wa asasa qura wa anfaqa fi sabilillah wa raa usaran wa daa li muxtaajin wa xalla azamaat wa saada talabat alilm wa shafa marda wa anqada muxtaajin duna ma nadirin ila usulihim aw aqidatihim aw intimaihim fi sénégal aw xaariji sénégal wa alayhi fa cheikh abou baraka yad'una jamian ila mazidin min alihtimam bi talabi alxalaal bi'tibarihi min alibada allati min ajliha xuliqna wa min alamal alsaalih ahadi arkani almuridiya alasasiya allati hiya fi jumlatan ibaada an ibaada bi ixlaas ibaada xaalisa li wajhillah bi ittibaai tariq sunnati almustafa alayhi salatu wasalaam wa wasailuha al ilmu annaafi wal amalu saalih wal adabu almardi ومن أسباب القوة التي أمرنا بإعدادها قوله في سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة وختاما لضيق الوقت ndax ci muhaajir kalima bi tadarru ila llahi taala wa duaa li ixwa ahibba tarbituna bihim alaqatun watida min mawaddatin wa xusnil muamala wa qad qadu nahbahum baadama sadaqu ma ahadullah alayhi minhum ibnatu ammatina soxna maam Busa Mbakke soxna Bari Mbakke albarra wa minhum al ibnu ruuxi li cheikh Mahamadou Fadel axuna Sidi Lamine Niass alayhi kaana maarufan fi hadi diyaar zakarani shaxsiyan bi annahu kaana yazuru cheikh wa kaana yanzil inda walidi cheikhina inda walidati cheikhina wa yaqul loo cheikh bil arabiyya tajidni fii ndindi dakar wa kaane indi wa alaqat xasa man cheikh Modou Fadel wal axawaani saalihani sayida ali atral xadima Serigne Bara Mbacké wa Serigne Cheikh Mbacké ibnu Cheikh Abdoulahi borom dërëb dakarnaahu qabla qalil alladani xalla ajaluhuma xilal al usbuu al maadi rahimahum llahu jamian wa radiya anhum wa askanahum fi lfirdawsi al ala maa annabiyiina wa siddiqina wa saalihin wa xasuna ulaika rafiqa wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin liñ bëgg a tënk ci gàttal ngeen jéggal ma li ñuy wax dañ koy wax ci turu sëriñ Abo Mbacke mu di ko wax ci turu sëriñ Bachirou Mbacke miy jëwriñu kër gi ci ndigalul sëriñ Abdou Fattah mi yor kàddu kër gi xam ne lii ak commission bi yor aj bi yor liggéeyu màggal gi ñoo ko tënk ni wax naa ko wax seen tur mu di ñetti ñetti mbir lay aju rek ci gàttal gannaaw bu nuyoo jàdd yolle kàddu cant fàtte li tax ñu daje fi tey wax wax sëriñ bi ni muy téewoon liggéey ci gàttal mënoon naa gudd lool waaye jotaay bi gàtt cant gi mi ngi sëriñ baa ngi koy jiital jëmale ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko wax nañ ko sànq yàlla na fi yàggal te wér ndax taxawaay mu rafet ci diine ji ci bokk gi ci réew mi rawatina ci kër sëñ Fallou damay wax ne sëriñ Muntaxa li wolof di wax maa ca raw maa ca raw gàtt xel la waaye ku jaxasoo moom ku ne da ngay def fi mu ne teg tegu fa kenn waaye kenn sikki sàkkawul te sëriñ bi xam ne ne teg na sëriñ Fallu place bu rëy boo xam ne dañu alhamdulilah rabbil alamin yàlla na yàgg lool rek di sant kilifa yi fi teew yëpp kilifa yi diine yi waa kër sañ tubaay yi waa kër kilifa yi diine yi di nuyu ministre bi ministre Moxtaar Ba ak ministre yi mu àndal ak délégation bi mu àndal toogal fi président de la ak ambassadeurs yi fi toog ak kilifa yi diine yi fi toog yëpp ak ñun taalibe yëpp suñ baa ngi ñu ñëpp di ñu sant di leen gërëm ci lépp li taxawaayu rafet yi ngeen taxaw ci bis bu tedd bi xam ngeen ko gis na ko yëg na ko kàddu cantuk sëriñ bi dana dana ñëw di sant presse bi presse bépp rek presse presse privée bi ak presse publique presse d'état bi ak presse bi moo xam presse écrite bi la wala presse télévisuelle wala presse écrite ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku teew ci bis bi maa nga jàpp ci bis bi sëñ bi gis na ko yëg na ko ma lay sant di la gërëm te sant mënta weesu sant te waxtu bi xat na wa ñette ñaareelu point bi mooy day fàttali ñu fi tax ñëw rek juñu nañ ko sànq te ñëpp xam nañ ko mu li barkeelu feeñ gu Cheikh Mamadou Fadal feeñoon ci guddi gi te xam ngeen ne guddi gi lu bari xew ci ci tënk ci la sëñ Fallou feeñ ci lañ gàdday ràññaaye woon yonante bi sallallahu alayhi mu jógee Makka dem Baytul Maqdis jóge gën a kawe ci la jullit juróom wàcc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 wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jàngee ngeen ko yéen yëpp Sëriñ Tuubaa wax ne daan ko tuddi talabul xalaal waaw kasbul xalaal mu ne talabul xalaal faratala la ci jullit bu nekk loolu amu ci lu ma sikk sàkka mu ne xam-xam kese du jëriñ jaamu Yàlla kese du jëriñ fekk defoo ko tey lekk lu lu dagan kon nag da ngeen di sàkku lu dagan waxtu wu ne bu ngeen bëggee ak njub bu ngeen bëggee seen seen seen topp suñu borom nangu ko ci loolu moo tax sëriñ abul ñuy sànq di ñu di ñu fàttali di ñu gën di dénk ñu gën a góor góorgóorlu ci liggéey gën a góorgóorlu ci sàkk lu dagar te jàppe ko ne jaamu jàll la ak avant muy nekk leneen te jaamu yàlla googu moo fi indi muy muy jëf ju te xam nga ne jëf ju jooju soo ko boolee moom jaamu yàlla xam-xam buy jëriñe ak jëf ju yiw ak ak ak jikko yu ñu gërëm mooy firi yoonu murid Sëriñ Fallu bi tax ñu tax teew nag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 nee na bu sëñ mosaan dugg ci oto bi bay dem fe bay dem ndindi da koy déey wax ko ci arab ne ko tajirul ni fii ndindi yàlla dafa dogal man mu bokk ci ñi mu njëkk ñi mu njëkk invité ci diine ak jamono ba mu koy door a bu ñuy bu ñu koy delloo hommage sas wax ne naa ko jottali dañ cey bég sant ca bu baax ñaan yàlla xare ko àjjana gën a kaw sëriñ bi dana joxe ñaan ñeneen ñaar ñi fi bàyyi ko bu yàggul tudd nañ leen muy sëriñ Baara Mbàkke moom soxna Fatja ak sëriñ Cheikh moom Cheikh Abdoulahi Mbàkke borom dara bi yéegi bu bari ki démb kon ñu ngi koy ñu leen di fàttali ko di la ñaanal bi joxe ñaan gi sëñ bi leen ñaanal ñun dañ ne woon ñu àggali ci lii rek yàlla ñaan ñaan yàlla yërëm leen taxar leen àjjana ji gën a kowe li daal lañ ne woon ñu tënk ko ci ci ci jéggalu nag ndax kilifa yi waruñoo teew ñu yëkkati kàddu danañ ndigal li bu ñu dagee bu ñu dabee te bett ñu rek danañ ca jéem a nab nab bi jéem caa jaaxase xam nañ ne wax waxtu xat na lool kon ñuy sant di gërëm tey delloo kàddu gi waaw yuqaalu li bi anna hunaka wafdu jaa min Nigéria al ixwanu raxibu bikum jamian wa xaasatan hum min atariqa alqadiriya wa adunnu annahum zaaru tuuba qabla hada li anni raaytu muqaabalatahum maa cheikh Mouhamadul Amin Baara wa raaytuhum maa ibn axi cheikhuna Mbakke idan marhaban bikum fi daarikum wa fi manzilikum wa naqulu lakum kama qaala shaair yaa dayfana law zurtana la wajadtana nahnu duyuufa wa anta rabbul manzili idan marhaban bikum fi baladikum bayna ashiqaa'ikum wa ahbaabikum fi haada fi tuuba almahruusa allati hiya baladul muslimiin wala du jami wa baladul muslimin aynama jaa'u wartaxadoo waxaj barakallahu fikum shukran jazilan jërëjëf Mbakke rafet na lool